kon dañuy jëm fexe ba indi ak leeral tuuti ci liggéey bi nga xam ne tàmbali nañ ko tey te ñu tuddee ko ñu duppee ko naatal Touba xam ngeen ne Touba ca kanam li ko tax a jóg mooy lépp luy jëmale Touba ca kanam mu dugal ci loxoom ci wet yëpp. jamono nag bu ñuy dox ba àgg si ci benn projet wala benn mbir dañ koy wutalu tur bi fi doog a indi camion mbalit yi dañ ko tudde woon setal Touba daaw bi ñu tàmbalee ci éclairage public bi mooy lamp mbedd yi dañ ko tudde woon leeral Touba bi ñu tàmbalee ci reboisement bi mooy njëmbatum garab yi dañ koo tuddee naatal Touba fekk nañ fi nag booba ay kuréel yu bari yoo xam ne yii ci état bi lañu ñu aju yoo xam ne yii ay daayira lañ wala ay association yoo xam ne lu jëm ci wàllu garab ñor na leen bañ def ci ay liggéey yu am solo Touba ville verte xam ngeen ne projet étatique la boo xam ne jotoon naa dugg ci dëkk bi waaye am na beneen Touba ville verte boo xam ne association la ak yeneen kuréel yi fi nekk bi ñu xalaatee projet bi dañoo fexe ba dem ci ñi nga xam ne ñëpp war nañ cee wax ak ñoom ñëpp ñi yëngu ci wàllu garab ci dëkk bi ak autorités yi nga xam ne ñu leen fi teewal dem nañ commune ba am ak ñoom réunion waxtaan ak ñoom ci njiital Serigne Cheikh Abdou Bari mi nga xam ne mooy jiite commission environnement bu commune dem nañ préfecture bu Mbacké ci préfet adressé ko lettre bind nañ lettre Sonatel ak Sénélec bind nañ waa Ageroute aussi ndax euh, kuy def ci wàllu yoon nga ciy am loo ciy liggéey lu mel ne di Touba doon liggéey faaw da nga wax ak ñoom. moo tax montant bi nga xam ne Touba ca kanam na ko waajal na ko pour def ko ci reboisement ci atum ren bi toll na ci 50 millions mais distance bi liñ fi jot def boo koy xool mën nga ko estimer ci 30 millions parce que pareegul ba léegi liggéey des na. jàpp nañ ne bu noppee dinañ fi def en espèce luy tolloog 30 millions au maximum. waaye bu ñu xoolee li nga xam ne nit ñi jaayante nañ ko ci dugal ci seen loxo jàpp ci liggéey Touba ca kanam ci loxo yoo xam ne dañ koo jaayante ngir si Serigne Touba loolu boo ko doon xayma mu romb loolu fop kon dañuy joxe rek ku bu mel noonu bi ñu ñëwee fii ci diggante deux voies yi nga xam ne ci lañu ñu commencé tam toll ci ñetti kilomètres ñetti kilomètres yi dañ ko xayma ne nañ fi def junni garab yan xeeti garab lañ fi def laataa ñu koy wax waxtaan wi bari woon na ci waaye ñu mujj dëppoo ci ne nañ ci moytoo def garab gu rëy parce que foofu dafay soxla lumière ndax dafa am i nañ ci moytoo def garab gu rëy ndax ñaari tali yi dañoo xaw a jege te reen yi mën naa indi jafe-jafe ci tali yi waaye diggante bi aussi am na ay fil yu fi nekk yoo xam ne euh, ñoom ñoo war a lëkkale lamp yi nga xam ne ñooy leer foofu ci biir loolu nag ci lañu xalaate kon ak borom xam-xam yi ne kon nañ fi def ay garabi cocotier ne garabi cocotier ne nag xeetu garabu koko la mais beneen façon la boo xam ne am na wute ak yeneen ndax garab yi ni ñu ko xamee bu ci nekk dafay am wuute ak morom ja ci biir loolu ci biir xalaat yi biñ fi jëm biñ commencé nan nañ fi def garabi cocotier ne dañ nañ ko de garab gu nekk ak morom ja ñetti mètre lay doon ñetti kilomètres yi ñu def ci junni garab waaye xam ngeen ne garab li muy àndal dafa bari ci saa si rek ay xalaat dafa daal di tàmbalee jib ci ne kon nañu waajal nag unité de transformation bis bu yàlla dogalee garab yi koo koy commencé meññ nga xam ne loolu dafay daal di commencé dugg ci wàllu industrie industrie boo xam ne dafay jóge ci reboisement bi ndax dañ ko xamee reboisement bi ab commencement rek la waaye biir dëkk bépp lu ñu bëgg mu gën a yaatu ba fu am ko lu wër corniche yi ñi ngi xalaat ay garab yi tàndarma ñi ngi xalaat ay garab yi mango mbedd yu mag yi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci jumaa ji génn dëkk bi yëpp ndax ni nga ko xamee Touba moom li ciy tawféex ji mooy mbedd yëpp dañoo jëm ci jumaa ji wala mbedd yëpp dañoo bàyyikoo ci jumaa ji dem li ko sabab nag yomb naa wax moom may borom dëkk bi dañoo njëkk jiital jumaa ji doog a tabax dëkk bi loolu moo tax lépp bàyyikoo ci jumaa ji dem mbedd yooyu yëpp na fas yéene nañ cee defi garab penc yi fas yéene nañ cee defi garab garab yooyu nag war naa doon loo xam ne du yem rek ci naatal dëkk bi mu nekk mu nekk ab taar nii rek waaye dafa bari njariñ njariñ yi buñ ko doon buñ ko doon lim du jeex buñ ko doon lim du jeex bokk na ci rek gis ngeen ne yéen ñëpp tey bi ñu xëyee ci deux voies yi di fi liggéey ci ñaari tali yi seetlu ngeen bu baax a baax circulation oto yi ni mu baree te xam ngeen ne fukki at ci ginnaaw ko ku ñëwoon fii taxaw doo gis oto yi baree nii te loolu kanam la jëm oto yi li ñuy dégagé ci saxaar te oto yi gasoil lay doon te léeg-léeg sax ni ni yàlla bindee doomu aadama ak oto yi du doon yu bees oto yu màggat lay doon saxaar soosu dafay polluer air bi dafay dafay bàyyi tooke ju baree bari ci jaww ji nit ñi di ko noyyi li muy indi ci wàllu euh, jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram kenn xamu nu boo seetloo dëkk bi da ngay gis ne lu jëm ci feebaru noyyi moo fi ëpp soj lay doon wala feebaru asma wala feebaru bu jëm ci bakkan yu fatt te loolu li ko sabab mooy air bi pollué bi daf cee bari te loolu dañ cee war a liggéey te garab a koy dindi ndax doomu aadama yi li ñuy dégagé ñoom ci seen bopp di ko noyyi di ko nokki muy génn loolu garab yi dañ koy jëfandikoo waaye garab yi ñooy produire li nit ñi di noyyee te garab mooy jumtuwaay bi nga xam ne bu jeexee ci kaw suuf doomu aadama jeex ci kaw suuf te adduna bi dañoo toll foo xam ne ni ñu koy agressé métti na ni ñuy agressé garab jéggi na dayoo fi ne nii may wax ak yéen am na àll bu ñuy wax Amazonie nga ca côté Brésil lakk ci hectare ren jii rek wax nañ ne li fa tàkk ci ay daay mën na 75000 daay te loolu yëpp ay doomu aadama koy def te foofu dañoo waxoon ne mooy poumon du monde mooy xolub adduna bi noonu nag mu nekkee woon xolub adduna bi te ña ngi ne di ko yàq noonu la Touba taxawe tey war a doon xolub Sénégal ci wàllu garab ndax ni ko sëñ Sonia bi di doon waxee léegi mi ngi ci digg dëkk bi euh, nekk ci euh, centralu réew mi te bis bu yàlla dogaloon mu doon xolub Sénégal ci wàllu garab dana am njariñ lu bare bari loo xam dana ko indil ñëpp garab kon njariñ li bari na mëne si koo lim waaye ñu maase xam ne képp koo xam ne jëmbat nga genn garab ci kaw suuf bokk nga ci ñiy sauver adduna bi waaye képp ko dagg ak garab ci lu dul benn benn yilla bokk nga ci ñi yàq àdduna bi àdduna ñett a fi ñëw ñett nit rek a fi ñëw ñaar ñi ay mbokk lañ kenn ki daa beru ñun nag jàpp nañ ne ci kenn ki beru la ñu bokk ñaar ñi mooy ñan mooy koo xam ne daa ñëw àdduna ngir seetaan fi ak koo xam ne daa ñëw àdduna ngir yàq fi ñoom ñaar ay mbokk lañ ak koo xam ne nag daa ñëw àdduna ngir defar fi te àdduna bi suñu borom da koo defar ba mu jag mu jëbbal ko doomu aadama yi ne leen dénk naa leen ko wala tufsidu fi lardi ba'da islahiha suuf saa noonu jag na bu ko kenn yàq ginnaaw bi ñu ko defaree ba mu baax doomu aadama ñu bari ci ñoom dañoo taxaw temm ci yàq suuf si te lañu la ñuy sukkandikoo ba ba di ko yàq du dara lu dul rek njëkkante ci wàllu koom-koom njëkkante ci wàllu richesse bu ñu xoolee gouvernement yi àdduna bi yëpp li ci ëpp mooy kan moo nekk ci euh, sept premières yi kan moo nekk ci quatorze premières yi loolu moo tax lu jëm ci wàllu environnement xeex bi nga koy xeex du jag ba ba faaw Touba nag mbir la mo dëkk la boo xam ne war naa mën a wane exemple ci àdduna bépp wàccee foofu kàddu yi di wax ne di wax ne ñoo ngi sant ko gërëm ñëpp liggéey baa ngi ni tàmbali na liggéeyu ñëpp biñ ko tàmbalee nag li ñu jot ci ay message ak i ñaax yu ñuy ñaax la ci ëpp mooy mbaa dana am suivi la ci ëpp mooy mbaa da ngeen wax ak waa dëkk bi bañ mën koo taxaw la ci ëpp mooy xar yi ak bëy yi di taxawaalu ci mbedd mi lu ngeen ci xalaat loolu nag kenn ku nekk ci ñun rek responsable nga ci kenn ku nekk ci ñun responsable nga ci garab yi war a màgg te dund tey jii wax nañ ma ne bi ci suba bi ñu commencé jëmbat am na ci diggante boo xam ne am na xar yu ñu fa commencé wane seen ñu tàmbalee lekk ci garab yi te nee nañ ma bi loolu yi am am na ñu toog seen i buntu place jàkkaar la ñoom waxuñ ci dara lu mel noonu nag mbokk kenn ku nekk ñun war ngaa jàpp ne lii sab liggéey moom ndax ni nga fonke sëriñ bu mag bi fonke ko xasaay itam yi ak njabootam gi nu ko raw nga war a fonke dëkkam bi bismillah laaj bi ñu laaj rek mooy suivi boobu ndax Touba Ca Kanam moo ko yor boobu wala dafa am particulier moom Kanam ni nga xamee Touba Ca Kanam mooy ñëpp ñëppay Touba Ca Kanam yow mii di laaj-laaj bi nga xam ne Touba nga dëkk ci Touba ca kanam nga bokk ci suivi bi nga bokk ñu baree bari ci association yi ñu wax man damaa tudd daayira Touba ville verte bu yàgg yàgg lañ joxe woon seen bopp ci ànd ak ñun ci suivi bi wante système yi léegi àdduna dafa avancé adduna avancé na dox na bari na ci loo xam ne lu ñuy wax dañ koy automatiser automatisation lu mel ne système d'irrigation par goutte à goutte ñoo ngi koy xalaat wante fii ak nawet bi jeex dañuy continuer bu tawut ñu fii ak am xalaat boobu di xalaat boobu di sotti bu tawut ñu utiliser camion système yi ngeen fi gis tey ci subaak léegi ñuy roose wante nag loolu bu ñu koy def tamit dañ koy ànd ak ñi ñu àndaloon ñëpp ndax liggéey bi bu ko wotee ñëpp ci bokk gis ngeen leen ñooñu lañ koy àndal bu ko defee nag ñoo jëmale xalaat yi ci système d'irrigation parce que dañoo wax ne garabu koko yi li muy soxla ci ndox dafa bari